nag ñu ci bëri ci euh, état bu Sénégal naam jege nañu njiitu réew waaye Walf Quotidien nee nañu gisuñu seen teguñu seen bët lu mooy ci fauteuil présidentiel bi ndax bëgguñu lu mooy njiitu réew bu lankalee rek euh, candidature ci ati ñu mën leen a sampal seen ndënd bokk na ci Idrissa Seck may yërndu médiateur de la République ak Mouhamed Boun Abdallah Dionne ñoom la seen nataal daal dina fàng euh, ci xët bi la di Quotidien ci biir Walf Quotidien te rendre ki nga xam ne génn na àdduna di rek euh, Thione Ballago Seck diggante ak relation bi nga xam ne amoon na ko moom jot na ci dikkaat ci biir euh, xët yi ci xëtu Walf ñu mën fa nemmeeku euh, couvre-feu bi nga xam ne yóbbu nañu ko ba minuit am na ñoo xam ne gis nañ ci seen bopp bu baax a baax waaye dossier yu tàng jël yi nga xam ne ba tey ñu ngi koy xaar ñu jàpp ne dafay gàllankoor sûreté de l'État mu mel ni cas Guy Marius dañu ko caa fësal nee nañu amagul sax contrôle judiciaire moom Guy Marius Sagna ñu ngi ko teg ca kaso ba tey guñu yàbbi ci mujjanteelam. ñu buñ jógee ci Walf Direct News. yi tamit nataalu njiitu réew mi Macky Sall daal di xëy fësal crise politico sociale bi ñuy dund jamono ji Seydina Direct News ne njiitu réew mi Macky Sall xàmmeewut ay ñoñam ndax nag bu ñu nee rek euh, kan moo farak waa APR ñu daal di jóg sara xoole bu fekkente ne séddale post la wala sax amub koppar waaye nag bu njiitu réew mi Macky Sall nekkee ci guuta du kenn ku génn euh, ministre mi ñu ngi ne patt toog euh, ñi nga xam ne ñoom ay directeurs généraux kenn déggu leen député yi as tuut nga ci dégg nii wër ci plateau yi di wax ñu ci bëri daal daanaka seen i xaytu ak seen ñaxtu ci whatsapp bi la yem ak ni mel wala photo de profil waaye dem ci guerre gi euh, toog waxtaan euh, ak askan wi ba tey amul kenn ko ca finde journal bi sax dem bay dëggal kàddu yi mu Cissé Lo yëkkati woon ne ca Touba bu ñuy waxee ci Macky moom dong moo saña euh, taxaw dëggal boppam ngir rek jàppale njiitu réew Macky Sall foofee ci opposition bi nga xam ne moo ne ca Touba nañ sax bay samp laaj ci ne diwaanu Matam jàpp Saint-Louis moom njiitu réew Macky Sall am na fa juróom-ñaari ministre juróom-ñaari ministre yi du kenn koo xam ne jóg nga jàppale ko ci situation bi nga xam ne nekk na ko dem nañu bay laajte ana ministre de la jeunesse ana waa ne ñoo di cadre convergence républicain yi gisuñu kenn ba sax député Dembourou Sow bi nga xam ne dafa waxoon ne bu njiitu réew Macky Sall amul ñetti mandat nañu rek daal di génn amal ab euh, génnee jaas ji kookee tamit gisuñu ko ci coow bi nga xam ne nii ñu nga cay tuumal njiitu réew Macky Sall ne dafa comploté ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko Babacar moo def analyse bi ci direct news Les Échos. les ko yéene yi tamit njiitu réew Macky Sall la daal di xëy fësal ne euh, duut na ab euh, duut na ab dëgg yoo nga xam ne yaakaar na ne noonee la ndax nag ab ndaje jox na ci digganteem ak société civile bi ci àjjuma gi weesu moom njiitu réew Macky Sall ne mënul accepter benn yoon kenn koo xamante ni day imposer boppam jaarale ko ci fitna njiitu réew Macky Sall yemu ci ci ay kàddoom mu ngi xam ne ne ba tey musuma taxaw ne kenn damay am ñetteelu mandat kon liggéey leen te bàyyi coow moom njiitu réew Sall ba tey ci ay kàddoom ne justice Sénégal dañ ko war a bàyyi mu def liggéey liggéeyam te nag nit boo nekkee njiit buñ la convoqué ak loo munti def da nga war a dem wuyu ji mel ni kuy wax Sonko ndax joxe na exemple euh, ki li nga xam ne moo di Karim Wade ak Idrissa Seck mi nga xam ne ñoom la ñu mujj convoqué euh, te ba ñuy nekk opposant la woon te dem nañu wuy ji wax na yi tamit ci euh, mbiru Karim Wade ak Khalifa Sall ba tey ci xët yi lee ñun mën a nemmeeku ci les échos ki nga xam ne nii jàpp nañ ne moo remplacé ki nga xam ne moo di Assane Diouf ci nekk insulteur numéro un du net moom Ousmane Tunkara dañu ko teg loxo ko ndax état bu Sénégal moo ko plainte nii dafa amal ay acte terroriste ak menace de mort moom Ousmane Tounkara sax jot nañ ko jàpp ca États-Unis ba muy dund Sud Quotidien yéeni kaay moom njiitu réew Macky la ne euh, ci gestion post Covid bi euh, nes def rek ba mën a béggandi situation bi nga xam ne jamono ji ërtal na ko ci miir source a source moom des nag ci li nga xam ne moo di ab décryptage décryptage nag ci colinu euh, ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ne léegi dafa changé soppi doxalin Ousmane Sonko gisatuñu ko ci cravate wala chemise ak veste taxaw boppam léegi nag euh, di ba mu amee jafe-jafe gi ba tey Alkali Diouf moom professeur la en marketing communication politique neena na gu yees la nga xam ne colin gu bees gi nga xam ne Ousmane Sonko fësal nañu ko sax euh, ci euh, xët bu source a ne léegi day def chemise africaine boole koo koppati gu ndaw goo xam ne nii bu ñu ko xayma ci communication bu marketing dafa rek bokk ci lay wane ne askan wi maa ngi ak ñun ñoo far te itamit engagement bi ngeen am moom la am ñoo bokk làkk gi ñuy làkk muy làkkub wolof loolee nag mu daal di koy décortiquer bu baax a baax ci xët yilee euh, 24 heures 24 heures yéen kaay nee na léegi fat doomu aadama dafa bokk ci bonus gi tax nga daal di jiite ndax njiitu réew Macky Sall ni ki ati 2012 euh, ŋàññi woon na bu baax a baax faatu doomu aadama yi ci ati 2011 ngir toog ci pouvoir bi wante tey jile li ñu nemmeeku mooy ne politique gu ak lépp lu mënta doon faaw rek doomu aadama yi ñàkk seen bakkan ngir ñu am ay coppite tey njiitu réew Macky Sall ngir coppite am sax ba xam ne ndaw ñi lott nañu il a fallu toll ci fukk ak ci ay doomi aadama faatu 24 heures di koy déplorer. ñu réew mi. réew mi moom dafa xëy rek daal di euh, fësal euh, tànk euh, këru diine yi ni ñu amee solo ci doxalinu ak stabilité réew ba Sénégal dem ba fësal nataalu jàngu bi ak kilifa yi diine yi moom xalif général di Mouride sax gën ci ràññeeku lool ñuy xam leen nag gouvernement bi fi mu toll nii ci miiru wis bi tey ñi nga xam ne ñoom ñoo door ngir rek daal di fësal jàmm taxaw nañ temm ngir rek arrêté ko. le témoin le témoin sax dem ba naan kii di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ko hué dabaax bu yees dabaax bi nga xamante ne nii daan na euh, sóob loxoom bu baax a baax ci politique gi ngir rek mën a fexe ba dal jàmm am noonee mu taxawee woon moom Abdou Aziz Dabaax noonu la tey Serigne Mountakha Bassirou Mbacké taxawee tey mooy di ko ci delloo njukkal. critique critique yéen kaay defu critique bu yaatu ni jamono jii kay nañu jàpp ne rek pouvoir bi fi mu toll nii euh, Touba ka moom ndax daanaka njiitu réew Macky Sall euh, jëfe na ndigal ndax lu bëri bàyyi na ko te Serigne Mountakha moo ci jaar ak médiation bu am solo. le mandat le mandat nag fi mu toll nii moom dafa rek daal di euh, xëy indi ab laaj jëmale ko ci la nga xam ne fi mu toll ni xel tey na ci muy euh, vaccin AstraZeneca le quotidien le quotidien yéen kaay ca la desandi sax dem def ci jeu de mots ne AstraZeneca maanaam AstraZeneca mu ngi gêné jamono ji polémique Covid 19 ca la ñuy desandi ndax euh, Seydina réew tugal yu bëri jamono ji dañoo gantal ne dañuy dakkal li nga xam ne moom moo di campagne yu ñàkk gi jàpp ne AstraZeneca dafa am ay complications jëmale ko ci wàllu wér gu yaram ndax spécialistes yi njëkk nee nañu euh, boo ko ñàkkuwee deret bi du woy loolee nag docteur euh, Mamadou Ndiaye moom moo nekk directeur de la prévention nee na jot nañoo enregistré lu toll ci fanweeri junni dose vaccin AstraZeneca fii ci réew mi waaye amagul benn effet secondaire. le soleil. le soleil mel ni ku koy dëggal dem sax ba cay jox kàddu professeur Tandakha Ndiaye Dièye moom immunologue la dafa ne rek dañu war a wóyal campagne bi euh, ci euh, vaccination AstraZeneca ndax mën nañoo soobu ci ñetteelu vague te boobaa variant Covid 19 bi mu ngi fii te Sénégal jamono ji amaguñu immunité collective te day gën a tar ci ñun kon nañu rek wóyal ñàkk gi. nag moom dafa dem ba ca diwaanu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nii ña dem ba yegg master lu néew lañu te ay millions étudiants ñoom la ñuy orienté chaque année ñu daal di xayma sax ne niki at 2020 lu toll ci 17 milliards ci koppar jot nañu ko euh, sóob ci bourse yi tey lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ci ay ndongo rek ñoom ñooy mën yegg ba master mu doon situation boo xamante ne nii euh, ministre bi ñu dénk wàllu enseignement supérieur mu ngi koy libération yéeni kaay génnee lu doy waar te chambre de commerce Seydina dafa rek am càcc gu ñu fa nemmeeku lu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar million ci suñuy koppar la ñu fa daal di sàcc audit bu mag sax door nañu ko fa ngir xool carnage ba fan la jógee ak lu ci mën a am ñu ngi cay ap ab euh, association de malfaiteurs maanaam booloo ngir def jëy tàggat yaram suñu lamb tàggat yaram suñu lamb nag daal di jeexalee nataalu ki nga xam ne moom moo ji Modou Lo dara terewu ko nelaw lu dul rek daan Ama Baldé conserver titre roi des arènes moom Modou Lo sax jamono ji mu ngay rey boppam ca Lac Rose noonu la ko journal sunu làmb daal di xëy fësale loolu sax moo daal di buur li nga xam ne nii moo di yéenekaay yi di la sant di la gërëm na soxna Aïcha Diakhaté kon yàkkali incha allah rabbi ci xibaaru benn waxtu yi ci digg bëccëg gi lay doon euh, bon mbokk ci foofu la ci lañ yëkkate jotaayu xibaar yi. agsi nañ yow mi bëgg nag kaaraange yi moo xam sa bureau sa kër.